ngi nuyu ñëpp parce que comme ni ñuy wax léegi rek manifestation bu mel nii bu amee si dëkk bi yaakaar naa ni ndamu waa dëkk bi yëpp la ndamu population bi yëpp la mais ndamu Sénégal la tamit ndax xam naa ni ay manifestation yu mel nii dina am si ay dëkk ci ay pays wante du nekk jamais ci benn capital départemental ci capital national lay nekk capitalu dëkk ba lay nekk donc tey bu ñu jëlee comme Tivaouane dafa mel ni comme dafa li ñu waroon def Dakar la ñu jëlee ko dakaar indi ko Tivaouane dafa mel ni comme tey jii Tivaouane mooy capitalu senegal ci lii loolu nag dafay nekk mbégte si ñun nekk contenté comme ni ko préfet waxee léegi rek li tax li muy wone tey mooy mun nañu abriter réunion bu ne ak fu mu munti jóge ak fu mu munti nekk mun nañ ko jël donc loolu aussi lu am importance la. beneen bi ma si doole aussi mooy li nga xam ne moo tax moo leen fi tax a ñëw tey lu am solo la mooy waxtaane li nga xamee ni ëllëg mooy jëmale communes yi ci kanam ndax commune bu dem te amuloo alal joo xam ni moom nga yore sa commune doo mën a dem loolu lañ tuddee livre blanc ñoom loolu la ñuy waxtaan see tey pour que dans l' Afrique ba mu daj Afrique ba mu jeex ñu waxtaanee loo xamee ni que bu ëllëgee ñoom danañ ko mën a jox état yi état yi jël ko seet naka lañu ñu mën a fexe ba commune yëpp nekk ay commune yu viable loolu mooy bitu réunion tey bii donc pour ngeen xamee ko noonu. sànq ci sa discours ñu ngi lay dégg vraiment ngay évoquer potentiel bi nga xam ne teewoon am na ko kon bu ñu waxee décentralisation financière am na li ngay xaar ci commission bi ci wàll woowu ñu dimbali la ci. waaw dama joxe ay proposition ndax proposition yi ma def commune Tivaouane ni mu valable ci commune Tivaouane noonu la valable ci ay communes yoo xam ni ngi nekk dans toute l'Afrique. c'est pas Tivaouane seulement Tivaouane day nekk exemple ci en Afrique parce que am na ay jumtukaay wala am na ay ressources yoo xam ni ñu ngi nekk ci biir suuf si te état yi seen bopp ñoom ñoo ko exenoore bailleurs yi nga xam ne ñoo ñëw di ñëw si dëkk yi dafa investir dañuy wax ne état bi mun na baale li mu li mu moom mais li nga xam ni communes yi ñoo ko moom même bu ko état bi di baale it na fexe ba commune bi am benn wàll bu mu ko ci delloo loolu la ñuy wax. loolu moo tax ñu ne nañ bàyyi bàyyiwaat xel communes yi ndax commune boo xamee ni que fii la exploitation yëpp nekk minière yëpp nekk ñu pare exploitation bi di dem dans les dans l' état central te commune bi en contrepartie du si am dara loolu ñuy bàyyi xel loo état ne ko état nga que ni communes yi am nañu loo xam ne war ngeen bàyyi xel pour jox leen ko beneen bi ci des dañuy wax ne que bu fekkee ni que commune bi jox na la suuf wala état bi jël na suufu commune bi joxe ko.

kon bu boobaa aussi dañ ko bindaale si biir parce que loolu day yokk koom mu dëkk parce que tey jii bu fekkee nañ ma delloo suuf soo xamee ni que nit ñi mën nañ ko bay bu boobaa dañ ko jox ñi ci bay buñ ko fekkee mën nañ ko delloo ay nit pour ñu dëkk si bu boobaa aussi day yokk aussi nit ñi loolu dal na ay communes yu bari yoo xam ne ñu ngi nekk biir département de Tivaouane yoo xam ne seen foncier yëpp di ci ëpp mu ngi nekk sur le foncier minier te kenn exploité tu ko te joxaatuñ ko commune yi donc loolu tamit aussi day bokk loolu mooy li nga xam ne moom laa leen wax ne que bu fekkee mën nañ ko yokk ci livre blanc bi dina arranger commune yi ni mu arranger commune bi nekk ci département yi noonu lay arranger yeneen commune yi nga xam ni dañu nekk ci ay gox yoo xam ni dafa am ay mine nekk dans toute l' Afrique c' est ça loolu moom mooy raison bu bi ci des beneen bi ci des troisième bi mooy dañu affaire fiscalité locale parce que sànq dégg naa ñu ne il faut que ñu fexe ba que nit ñi nga xam ne ñoo nekk dans les communes ñuy fay loolu as am na mais parce que bu njëkk ba dañ da état central rek moo doon gérer ñi nga xam ne ñoo nekk dans la capitale léegi nag am na la fiscalité locale loi la ñu boole ko di ko def di ko appliquer fiscalité locale boobu day élargir l'assiette fo euh, l'assiette fiscale du Sénégal mais day dafay day permettre aussi à la commune mu am benn base fiscale bu légale bu normal loolu aussi ñu ngi koy def actuellement te ñu ngi ñu ngi ciy liggéey léegi communes yëpp benn bu ci nekk war nga def sa assiette fiscale sur sur le sur le sur la fiscalité locale bi nga xam ne ni que c'est régi par le par un arrêté du ministre des collectivités territoriales. en tout cas Barina ay ay ay jumtukaay yoo xam ni bëgg nañu ñom seen biir livre bi ñu boole walé ko ci revendication yi wala ci biir li nga xamni war nañ ko demander yeneen état yi pour que bu ëllëgé mu nekk lo xamni dina jëriñ commune loolu mom moy wax. voilà petit mot français euh, en tant que maire qu'est-ce que vous attendez de ce. bon en tant que français je pense que j'ai déjà fait un discours en français. ma ngi nuyu ñëpp parce que comme ni ñuy wax légui rek manifestation bu mel nii bu amee si dëkk bi yaakaar naa ni ndamu waa dëkk bi yëpp la ndamu population bi yëpp la mais ndamu Sénégal la tamit ndax xam naa ni ay manifestation yu mel nii dina am si ay dëkk ci ay pays wante du nekk jamais ci benn capital départementale ci capital national lay nekk capitale dëkk ba lay nekk donc tey bu ñu jëlee comme Tivaouane dafa mel ni comme dafa li ñu waroon def Dakar la ñu jëlee ko dakaar indi ko Tivaouane dafa mel ne comme tey jii Tivaouane mooy capitalu senegal ci lii loolu nag dafay nekk mbégte si ñun nekk kontante comme ni ko préfet waxee léegi rek li tax li muy wone tey mooy mun nañu abriter réunion bu ne ak fu mu mun ti jóge ak fu mu mun ti nekk mun nañ ko jël donc loolu aussi lu am importance la beneen bi mu si doole aussi mooy li nga xam ne moo tax moo leen fi tax a ñëw tey lu am solo la. mooy waxtaane li nga xamee ni ëllëg mooy jëmale communes yi ci kanam ndax commune bu dem te amuloo alal joo xam ni moom nga yore sa commune doo mën a dem loolu lañ tuddee livre blanc ñoom loolu la ñuy waxtaan see tey pour que dans l'Afrique ba mu daj Afrique ba mu jeex ñu waxtaanee loo xamee ni que bu ëllëgee ñoom danañ ko mun a jox état yi état yi jël ko seet naka la ñu mën a fexe ba communes yëpp nekk ay communes yu viable loolu mooy butu réunion tey bii donc pour ngeen xamee ko noonu. sànq ci sa discours ñu ngi lay dégg vraiment ngay évoquer potentiel bi nga xam ne teewoon am na ko kon bu ñu waxee décentralisation financière am na li ngay xaar ci commission bi ci wàll woowu ñu dimbali la ci. waaw dama joxe ay proposition ndax proposition yi ma def commune Tivaouane ni mu valable ci commune Tivaouane noonu la valable ci ay communes yoo xamee ni ñu ngi nekk dans toute l' Afrique c' est pas Tivaouane seulement Tivaouane day nekk exemple ci. en Afrique parce que am na ay jumtukaay wala am na ay ressources yoo xam ne ni ñu ngi nekk ci biir suuf si te état yi seen bopp ñoom ñoo ko exonéré bailleurs yi nga xam ne ñoo ñëw di ñëw si dëkk yi dafa investir dañuy wax ne que bi mun na baale li mu li mu moom mais li nga xam ni communes yi ñoo ko moom même bu ko état bi di baale it na fexe ba commune bi am benn wàll bu mu ko ci delloo loolu la ñuy wax loolu moo tax ñu ne nañ leen wax xel.

suuf au lieu mu bàyyiwaat non? N'ako dello ko delloowaat nu non le xam ne noonu la ba pare dello ko commune bi parce que bu ko wul commune bi commune bi mënu ci def lotissement commune bi mënu ci def dëkkukaay commune bi mënu ko utiliser parce que bu boba day nek titre foncier minier bu xasse ba nek titre foncier minier commune bi do ci amati yenn droit te lolou lañuy bañ motax ñu ne kon bu boba aussi dañ ko bindal ci bir parce que lolou day yokk comme koomu deuk parce que tey jii bu fekkee nañ ma delloo suuf soo xamee ni que nit ñi mën nañ ko bay bu boobaa dañ ko jox ñi ci bay buñ ko fekkee mën nañ ko delloo ay nit pour ñu dëkk si bu boobaa aussi day yokk aussi nit ñi loolu dal na ay communes yu bari yoo xam ne ñu ngi nekk biir département de Tivaouane yoo xam ne seen foncier yëpp di ci ëpp mu ngi nekk si le foncier minier te kenn exploité tu ko te joxaatuñ ko commune yi donc loolu tam aussi day bokk loolu mooy li nga xam ne moom laa leen wax ne que bu fekkee mën nañ ko yokk ci livre blanc bi dina arranger commune yi ni mu arranger commune bi nek ci département yi non lay arranger yeneen commune yi nga xam ni dañu nekk ci ay gox yoo xam ni dafa am ay mine nekk dans toute l' Afrique c' est ça loolu moom mooy raison bu bi ci des. beneen bi ci des troisième bi mooy dañu affaire fiscalité locale parce que sànq dégg naa ñu ne il faut que ñu fexe ba que nit ñi nga xam ne ñoo nekk dans les communes ñuy fay loolu aussi am na mais parce que bu njëkk ba dañ daa état central rek moo doon gérer ñi nga xam ne ñoo nekk dans la capitale léegi nag am na la fiscalité locale loi la nous avons appliqué la fiscalité locale pour élargir euh, l'assiette fiscale du Sénégal mais de de permettre aussi à la commune d'avoir une base fiscale légale bu normal loolu aussi nous actuellement et nous ngi communes yëpp benn assiette fiscale sur sur le sur le euh, sur la fiscalité locale C'est régi par le par un arrêté du ministre des collectivités territoriales en tout cas il y ay ay de choses yoo xam bugg nañu ñoom seen biir libre bi ñu boole waale ko ci revendication yi wala ci biir li nga xam ne war nañ ko demande yeneen état yi pour que bu ëllëgee mu nekk loo xam ne dina jëriñ commune yi loolu moom mooy wax. voilà petit mot français euh, en tant que maire bon en tant que français je pense que j'ai déjà fait un discours en français. décentralisation kon bu appliqué lu mel euh, ci waaw mbégte la mu rëy rëy euh, ndax tey Tivaouane ko ne xamante ne bii dëkku diine la dëkku Seydil Hadji Malick Sy la. waaye buñ ko doon tudd xëy na dañu daan xalaat ñëw ziare dellu waaye tey jii li ñu wane mooy Tivaouane au delà de cela am na ay jumtukaay ay infrastructures yu mag yoo xamante ne bii ñu ngi fi ci ay fu ñu mën a dalal ay gan di tax ñu mën a dalal xew-xew bu mel ni nga xam ne bi juróom-ñetti pays UEMOA yëpp ñu ngi fii tey ci Tivaouane loolu am na solo te yaakaar naa jàngal la boo xamante ne bi euh, war nañ ko def ci biir Sénégal mais également ci bitim réew ndax pays yi nga xam ne dañoo développé le tourisme religieux ay nit di fu nek di fa ñëw lu melni rek lañ ci lañ tambalé donc lool c'est un message très important boo xam bi mën nañ ko tiré ci li nga xamné mom moy vraiment événement bu xew tey ji muy nag xew-xew bu am solo ci euh, Sénégal ndax buñ né kom kom buñ né yokkute buñ né développement lool ay politique publique la yo xamné ne bi président de la République moo koy teg mu and ak ay projet programme waye lool nak daf ci bokk lu am solo moy gox goxane ni ñu leen dooleele jox leen ay ay mën-mën jox leen également ay jumtukaay loolu nag ci la ci la ci la ndaje bi jëm Sénégal nag doon réew moo xamante ne bi taarixam dafa gudd ci wàllu décentralisation ndax mu ngi tàmbalee ca 1972 la première réforme ñëw ci 1996 ba ñëw ci réforme bi nga xam ne mooy 2013 nga xam ne ci la ñu créé le département boo xam ne mu nekk léegi gox-goxaat waaye tamit ñu jële fi les communautés rurales indi fi legui lepp ñepp nek ay commune dool nek lu am solo waye nak mu dess leneen muy nan lañuy fexé ba commune yoy département yoy am ay jumtukaay ci walu kom ci wàllu ay copart lutax ñu mëna a jàkkaarloog nag so askan wi loolu moy moy loolu li ci dess lool nak yaakaar na ne ku ne xam njitu rew mi def na lu am solo waye livre blanc bi tay ñuy tëgg tay dana nek ben jumtukaay pour gëna sensibiliser état yi pour que ñu gëna def ay djégo pour gëna dolel ñi nga xam ne fii ñoom lañ teg ci bopp gox goxaat yi ngir askan wa nekk ci seen suuf ñu mën a am la ñuy soxla ci wàllu faj ci wàllu njàng ci wàllu naan ak ci wàllu lépp loo xamante ne bii mooy li ñu tuddee les services sociaux de de base. Merci.